Voilà. Euh, vous parlez tout à l'heure de votre papa euh, Touré qui est une référence ci li nga xamante ni moo di le métier est-ce que moom moo la inspiré ba nga dugg ci journalisme. oui ça euh, oui pour cent. à 100 pour cent ma journaliste je peux dire que j'ai eu le l'envie mhm. grâce à lui parce que boobu temps dama ko doon seetaan euh, temps office de radiodiffusion télévision sénégalaise. Okay. avant RTS Sudjun ma koy seetaan muy def journal bon seen génération euh, ay ñoom Sada Kane ay euh, Elisabeth Ndiaye euh, ak ñeneen ñoo xam ne ñoo bokkoon génération mais moom. Mhm. dama doon sàcc di ko seetaan parce que xam nga boo doon jàng ñun suñu jamono. Mhm. vingt moom dina la fekk ci bopp lal ba. mais quand koy seetaan yaa ngi amoon ban âge. à peu près maa ngi def lan boobu. j'étais j'étais Corse ah parce que boobu maa ngi maa ngi jànge euh, Madié sal te Madié Sall maa ngi fa def lu ñuy wooyee CP c un donc j'étais quand même assez relativement jeune mm -hmm. ensuite bi ñu demee bi ñu ñibbisee je m'amusais di fooye tey micro ak samay frères déjà maay journaliste di leen poser question okay. bon benn bant laay jël rek takk ci fil mu mel ni micro bon et je jouais un peu avec ça donc Euh, c'est plus lui qui c'est lui qui m'a inspiré. Mm-hmm. et c'est lui qui est ma référence ba tey. cest à que su may xool ci métier bi dama naan ni soxlawuma référence ci kenn ndax am naa référence. doy te bu ma doy référence parce que mm-hmm. yaakaar naa ne métier bi nekk na ci ba retraité kenn déggulu ko lu ñaaw. kenn xamalu ko lu bon non plus. au contraire bu ñu koy cité bu ñuy cité. Mm-hmm. ci ci journaliste yi gën euh, ci métier bi. dañ ko ci tudd donc. muy sacerdoce pour man muy également bon un, un exemple à suivre mm -hmm. bon souvent damay romb ay mag ñu mën a yaa yow de yaa ngi jël sa papa ay àggogo comme fi mu àggoon ci niveau ba mu nekkoon jël nga voix am wala jël nga <laughs> euh, taxawaayam mais àggogo ci li mu àggoon suñu ma waxee loolu souvent li ma leen di tooñee mooy waa sant yàlla waaye moom génération c'était le meilleur mais man li mu bëgg mooy sama génération que je sois le meilleur alors donc euh, looloo ko indi quoi. moom moo la inspiré. Mhm. mooy sa référence et votre fils sera-t-il journaliste. ba mon fils lu mu bëgg doon da koy da koy doon man sama principe c'est ça cest à actuellement bon j'ai ya macha allah j'en ai plusieurs déjà ñaar ñi moom football lañ bëgg ñu ngi jàng. Mhm. en di football. Mhm. Euh, suñu persee ci loolu xayru suñu bëggee def leneen l'essentiel mooy. li def na doon métier bu noble. parce que li tax ma wax loolu mooy man quand je voulais être journaliste au début. Mm -hmm. mon père n'était pas très d'accord. Ah. li ko waral mooy bon xam nga boo dundee ci milieu mu am ay ndëgg sërëx yoo ci dund am ay jafe-jafe yoo ciy dund bu doon sa sago doo gis sa doom. doo ko yéene sa doom tout à fait. mais comme ça évolué bon après jàppale na ma. vraiment mhm. euh, bi may dugg ISEC dafa jàng mu ne ma amul problème fayal ma jàng. Euh, ak yu ni donc euh, il était d'accord à, okay. à, la, à la au début n'était pas très d'accord mais bon gannaaw bi d'accord na sama doom yi nga wax nag am na kenn koo xam ne bi nga nekk xale journaliste début bi ma ne ko non est-ce que ni nga nekk journaliste parce que métier bi kii na bon mais j'ai vu que entre temps a évolué footballeur bon <laughs> gannaaw ko nag indil ñu ay milliards rek après ñu xool nu muy dana <laughs> macha allah alors est-ce que Birahim am na ay goûts musicaux est-ce que Birahim il arrive souvent ngay déglu musique oui et je retiens aussi de mon père parce que sama papa dafa avant d'être journaliste dafa ñu koy nettali il était d'abord animateur. ok te animateur bi li ko indiwoon may il fallait mu am lu mu mën a fayee jàngam. Mhm. université parce que papam il était macha allah assez muy sama turando mais teewul euh, dañu bëggoon a débrouiller wu donc mu dem pour mën a fay ay jàngam. ak lu muy soxla ci ay fascicules yooyu yooyu jamono université yooyu mu dem yàlla def il a une belle voix mu commencé animation. ñu déglu ko ci li mu wax ba xam ne voix bi ça peut passer seen une voix radiophonique ci la dugg ci journalisme jàng ko. bu dee métier dugg ci école. jàng ko mais li may wax naan génnee sesti wala génnee feneen c'est pas ça l'important. parce que moom jàng ko mais doon jàngale CESTI jàng na CESTI. jàngale na euh, ISIP donc euh, mais il a été sur le tas mais ñoom seen formation ak léegi du benn donc li tax ma ne musique moom ci dugal mm-hmm. tout simplement parce que euh, la musique toutes sortes de musique euh, yenn saa sax des musiques qui ne sont pas sénégalaises parce que bon peut-être ci loolu lañ ma yaree mais gis ay disque 33 tours 45 tours donc ça me permettait un peu de d'écouter toutes sortes de musique ay Bee Gees ci ay jamono ay Michael Jackson ci ay jamono. ok ay euh, Aretha Franklin ci ay jamono donc j'écoutais pratiquement ces musiques soul music et cetera bon arrivé au Sénégal tu es obligé de d'écouter la musique sénégalaise mais bon bari naa bari naa. jox ñu benn ñu dem seetaan ko. benn boo xamee ni nag boobu dama koy jagleel sama sëriñ. Hmm. maam Thierno Birahim di borom daaru mhm. bu Seydina Ousmane Mbacké Noreyni ma bu baax a nekk sama référence également. ci euh, àdduna ci mbirum diine Kader Mané di kenn ci sikarkatam yi mm-hmm. way bu mu ko way wayal ko moom borom daaru